fekk sëñ Ibrahima Mbaye yeew fii nag wu mag mooy woo ko téléphone na ko sëñ Ibrahima Mbaye de yeew na nag wu mag wax dëgg yàlla mu ne ma kon bàyyil ma jox la njëgu nag wa la ma ko am waaye ci wéef ma xëy ànd bi ñu àndal ñëw yët ko monsieur le sëñ Ibrahima Mbaye ne ko le maire nee nag waa ngi nii kon maa ngi nuyu Abdoulaye Kane mi ma fekk fii borom boofel baas mi nga xam ne nii sama classe gi classe Ibrahima Mbaye gépp ku ci màggal dana jàpp sa bis indil la baas bu rafet wax dëgg yàlla am du la ci fayeeku lenn lu seer bi may ñëw it maa ngi ànd ak monsieur le maire sëriñ Mooraan Guèye ànd ak sëriñ Saliou Bousso ci bëccëg ak sëriñ Jatara ak Saliou Jatara ak sëriñ Omar Seck ak Ngëneel Mbay gis naa léegi ci baas bi soxna Fatim Guèye ak soxna Fat Diouf ak soxna Fat Seck ñoom ñëpp ñu bokk ci jaboot ak monsieur le ministre maire Ablaye suñ ministre maire Galoba lim daa jagoo def si bis bii te daa ko fi warloo def na ko nam ko daa defee si Ibrahima Mbaye mii nag boo gisee ñu di ko sant waa Mbàkke gépp dañoo war a taxaw bu ayee ñoom ñëpp ñu bàyyi li ñuy def ñëw jàppale ko ci bisam ndax képp ko am bis ci Mbàkke da nga fa gis si Ibrahima mbay te nee na ma sas yi laaj de du biir Mbàkke kenn laa fi du laaj aw sas ci baasam su ma génnee de xanaa laay laaj dañ may fay waaye xësidee Sëriñ Bamba yi képp ku mu koy jàngal ci biir Mbàkke du laaj dara day jàngal bët rek nga yëkkati la nga am jox ko te ku ne xam na ne borom ak njaboot la boroomi soxla la ku ànd ak ay nit la waaye loolu Sëriñ Tuubaa mi tax mu di ko def nañ nañ xam nañ xam nag mooy kan ndax bu fekkoon ne tey jii dañ ñaan artiste bee de Mbàkke la dëkk mooy tëgg fee wala ñu ne ta musicien sàngam wala nangam dañ koy jox wàcce waay bu mag ngir dëkk gim dëkk Mbàkke kon nag bu ab jàngkatu xasida bu ñuy wax si Ibrahima Mbaye dëkkee Mbàkke ñun waa Mbàkke gépp nag war nañ koo sagoo war nañ koo faale war nañoo ànd ak moom ci bisam bii euh, nga fonk sa bopp moom ci jàmm yàlla bokk te gis nañ ne léeg-léeg da gis ku organiser fii ci raay bi seen foy yuy dong nga gis kenn ku ci nekk naan maa fa jënd taabal taabal 100000 nga gis kenn ku attana jënd juróomi taabal te boo ko wooyee ci cant ak Serigne Touba mënu laa jox ñaari junni yu mat te ñoom ñëpp dañu wuyoo ne taalibe Serigne Touba lañ xasida yee leen ko jarulut wala fomee leen neex man nag ginaar ak kenn nenu ma ku du Serigne Touba moom mooma sëriñ Tuubaa moomu ilif ñu moom ñu nag ñu gisee ku cay bay aw waar nañ koy jàpp te ko jàppale si ba Mbay waar wii nga nekk ñun waa Mbàkke gii nga si nekkal maa ngi sant sama benn xarit bu dëkk ci koñ bi ñu koy wax mu Moudou Mbodj damaa xewle ak màggal fën yi doon ko ci sargal doon ko ci jox ab diplôme mu yónnee si teraanga ju mag teraanga ju yaatu ak xéewal yu mat xéewal yu yaatu ànd ak man bis ba ba mu agsi ngi xaari la di seet incha allah dañ ko fas ak moom si Ibrahima Mbay ñu ngi lay sant bu baax wallaay kan miin ngeen ñaanal ko moom itam mu yokk boo fil baasam gu yokk ñu ngi sant di gërëm mbooleem koo xam ne jàpp nga si bis bi ndax bis bi ku ci jàpp ñun ñun ñun nga si jàppal ñuy sant gërëm nag mënut a wees sant gërëm waaye monsieur le ministre maire si Ibrahima Mbaye monsieur le ministre ñaanal leen ko moom itam mu yokk ndax bu yokkoo kat waa Mbàkke danañ yokk ndax gis nañ fan yii fan soo public mu jël ci lu toll ci nangami téeméeri xale yi Mbàkke ñoo xam ne kenn ku ci nekk weer wa ngay fayeeku yàgg ko yóbbu sa say waajur ànd ko ak sa njaboot te bu ñuy fal nit ci politique dañ koy fal ngir mu am njëriñal waa dëkk booba te monsieur le maire ministre ko am njariñ ci dëkk bi la barki démb moo Njaay gis naa ko ñoom Mourou Bakara ñoo ngi nunu waa marché bi mu gën a seen juma seen jàkka ja diglu naa discours bañ fa def dégg naa wax ja waaye lam wax lu leer nañ la da ngeen a ñëw ci man jox ma dóbib nangam ma def ca nangam waaye ku xool seen jàkka ji xam ne weesu na nangam jàkka juñ kuule euh, palafone ko mu amee xutba ku ko dugg xam na lii ay millions yu baree bari bari la loole ñu ngi ko ci ñaanal baax tombe nag moo waral ay gaaf moo tax immigration yi yàlla dogal ñu immigré ci loxoom ñu ngi koy ñaanal mu immigré yu bare baree bari te ñu fekk ko te ànd ak moom te ngeen ñaanal réew mi jàmm ndax gaal gi bu amee jàmm ñun ñëpp ñu bokk am jàmm yàlla na jàmm am ci réew mi ci daraja ci Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi dégg sunuy kàddu moo xam yaa ngi ci jotaay bi moo xam nekkoo ci jotaay bi nuyoo boo xam ne dañu ko jaarale rekk ci sunu kàddu waaye nuyoo la boo xam ne mi ngi jugee ci njabootu sëriñ maam góor jéy rahmatullahi aleyhi ñu ngi nuyu mbooleem ñi ñu fi fekk ñëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxool kilifa yi nga xam ne ñooy kilifay pénc mi di sëriñ tuuba te sëriñ seex Diagne teewal ko fi ak sëriñ Fallou di nuyu itam Cheikh Ibrahim di ko nuyu itam suñ nuyug bopp ndax yàlla dafa dogal muy sunu mbokk di sunu xarit di sunu wëllëre xaritoo goo xam ne gu yàgg la donte sax léegi ab diggante dox na suñu diggante donte léegi yàlla dogal lañu xaw a sore waaye ba léegi kóllëre googu ak mbokk googu ñu ngi koy dundal ñu ngi koy ndokkeel ci bis bi di ko ci tatagal di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci mbaaxam ak yërmandeem yàlla na ko nangul mbooleem lim def ci bis bi yàlla defal ko ci ak yokkute yokk aw fanam yokk ak wéram yokk barkeem yokk xéewalam ak képp koo xam ne jàppale nga ko ci bis bi waaye di ziyaare itam ki nga xam ne moom mooy boroom dëkk bi sëñ Seex Mbàkke Ismaayil di ko ñaanal sunu borom guddal fanam te wéral ko bu baax a baax a baax bu ko defee njaboot gépp ci seen mbaax ak ci seen mën yaatal ak ci seen teraanga xëy na ci lañ jëlee kàddu gi jox ñu ko ngir ñu def def ay seede ci jëmm joo xam ne yàlla dogal na xam nañ ko te amoon nañ bu baax cofeel goo xam ne cofeel gu jógee ci ñun jëm ci moom waaye moom itam amoon na cofeel ci ñun bu baax a baax cofeel goo xam ne am nañu ko xam bu baax a baax bu ko defee ñoom seen ci looloo tax ñu jox ma kàddu yi ma def ay seede te loolu it lu ama am solo la ndax sax siyaat yi nga xam ne dañuy feeñ ci àddina te yàlla suñ boroom def ci ñoom ay jikko yu baax yu rafet yu sell ñu amub taxawaay boo xam ne taxawaay ba yàlla sunu borom subhaanahu wa taala bëgg ci ab jaamam ci àddina la ñu taxaw taxawaay bu mel noona sax siyaat yooyu donte dañ fee jóge dañ leen a war di taarixaal dañ leen a war di di di waxtaane ndax waxtaane guñ leen di waxtaane danañu dolli moo tax boroom xam-xam yi di wax ne wa inda dikru saalihiina tanzilu rahma bu ñu waxtaane gaay yu baax yooyu yërmande yi sunu borom day wàcc ndax loolu xol yi sax dañu koy yëg doomu aadama dafa dafa dafa baax dafa baax asliyan sunu boroom moo wax ne wa nafsin wa ma sawaaha daane fa alhamaha bi mu waxee fujuuraha waaye dafa wax wa taqwaaha loolu mooy mbaaxu doomu aadama gi nga xam ne dafa nekk ci biiram di lu dëgër nga xam ne saa su déggee baax mbaax saa su déggee ñuy wax mbaax di ko waxtaane xolam day yëngu mu mu mu mu mu mu mu am cofeel ci ki ñuy waxtaanee te mbëggeel dafa day lu am solo ndax mbëgg mooy yóbbu nit ci roy roy nag dafa am fu baree bari fu mu yóbbu nit ka ngay roy fam nekk roy mën na la faa yóbbu moo tax loolu waxtaane ko dafa am solo dafa am ku ñu wax bisr ibn xaaris dafa wax ne inna aqwaaman mawtaa tuxiyal quluuba bi dikrihim gaa yi nga xam ne am na gaa yoo xam ne dañoo faatu waaye ñooñu waxtaane gi ñu leen di waxtaane xol yi dañ ciy dund moo tax loolu lu ama am solo la ndax loolu ñi ci càmmoñ gi sax dañ koy def boo demee ñi ci càmmoñ gi ñi nga xam ne dañoo nekk ci zahir si képp koo xam ne pom a nga nekk wala zahir sa nga nekk danga caa am ay jaloore man ko dañu lay fonk bu baax teral la yëkkati la bind sax sa siira di ko jàngal ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoon wi nga jaar ngir nga mën a ngir ñoom ñu mën a góorgóorlu bu baax a baax moo tax am na solo loolu ñuy jàng li nga xam ne moom mooy eh, taarixu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jóge am na wàll goo xam ne dañ koy bàyyeeg Serigne Souhaïbou def na ko mooy fu sell fi nga xam ne fi la ko yàlla suñu borom jaarale loolu yi bu juuf def na ci loo xam ne lu ama am solo la ñu koy ñaanal suñu borom guddal fanam ak wéral ko bu baax a baax nun nag dañuy def ay seede ci wet gi nga xam ne mooy wet gi ëpp solo ci doomu aadama mooy mooy mooy mooy jikkooy doomu aadama jikkoom akub taxawaayam ci àddina loolu ci la ñuy wax danañ ci indi ab portale boo xam ne Seydina Ali moom moo ko def ci gaay yàlla yi gaay yàlla yi nag bu ñu leen di waxtaane ñu bari rek maanaam doomu aadama kim xamul te di ko dégg moom la gën a mën a jox considération ci ki nga xam ne daf koo xam waaye mbaax mboom baax la rek ala kulli xaali pël ba ca pël ba ca jolof ak naar ba ca Maroc ak tubaab ba ca Europe ñooyam fu waaye baaxee rek te royee ko ci mbaaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek mbaax kooga ak mbaax la moo tax léeg-léeg bu ñu waxee turu gaay yàlla yi rek ñu bari seen xel day dem fu sori te fekk déedéet alxuraan ne na bi muy melal awliyaa yi daf ne alladina amanu wa kaanu yattaquun ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun daa ne alladina amanu wa kaanu yattaquun boo leen bëggee xam mooy ñi nga xam ne seenu ngëm yàlla mat na seenu wéetal yàlla mat na ci seen xol ba noppi nag ñu ragal yàlla mooy ñu jox yàlla cër ba li yàlla di digle duñ ca bàyyi luñ man li yàlla di tere duñu ko tay di te di ko def loolu lépp ñu koy def ngir jëmmi yàlla sellal seeni jikko sellal seeni wax sellal seeni jëflante seen digganteek nit ñi ñooña ñooy nit yàlla yi ak nu ñu mën a tudd ak fu ñu mën a dëkk ak der buñ mën a amee rek ñooñu ay nit yàlla lañ loolu lañuy lañuy def ay ay ay ay seede comme ni ko sëriñ son bu waxee am loo xam ne daf koo jëlee ci foofu mu feeñee mooy lim doon liggéey muy jàng alxuraanul karim ak di ko jàngale ak di dund ci li nga xam ne moom mooy aw ñaqam waaye nag nekkoon nit ku sàmm ku sàmm bu baax a baax ndax sàmm dafa am solo lool ñi nga xam ne seeni cër dañ koy sàmm ci lu naqariwul yàlla ñoo ala kulli xaalin yàlla sun borom dana leen terale aljanna ju tedd ja moo tax jikko bu bu bu boo xam ne képp ku ko xamoon xame xame woon nga ko loolu ak dëggu itam ba nga xam ne képp kuy nituk caaxaan doo ko mën a jege loolu yàlla sun borom subhaanahu wa taala defoon na ko ci moom xamoon nañ ko ci moom bu ñu ko daan gis rek ñun def nañ ab diir ci koñ bi doon fi yaxantu waaye bu ñu ko daan gis rek fekk tusbaar day bëgg jot wala tàkkusaan day bëgg a jot wala timis day bëgg a jot wala géey day bëgg a jot saa su waxtu wi demee rek dootoo ko gisati day delluwaat musu musuma ko romb cib garan loolu mooy dëgg-dëggi sàmm moo tax nit la woon koo xam ne ku sàmm la nit ku sàmmoon ku dëggu ku ku ku baax ku ku ku fonk doomu aadama te bëgg doomu aadama loolu nag ay melokaan la yoo xam ne yu yu yu matarooy la liñ doon wax te Seydina Aliin wax ko Seydina Aliin dafa wax ne ala inna lillahi ibadam muxlasin yàlla day am na ay jaam yoo xam ne moom suñu boroom moo leen sellal laabal leen wala nga ne muxlisiin ay jaam lañ yoo xam ne daal jaam yu sell lañ seenug set ak seenug laab ak seenug sell tax na dañoo am gis-gis bu sori ba nga xam ne sax day mel ni ñoom ñi ngi gis aljanna ak xéewal ya fa nekk di gis sawara itam ak ña fa sun borom subhaanahu wa di mbugal gis-gis boobu it ñaaree léeg-léeg boo koy wax nit ñi sax dañuy def ne ay gént la te loolu doomu aadama mën na koo am doomu aadama mën naa am lu ñuy wax firaasa mooy gis-gisub xel bépp xel boo xam ne xel mu set la mu laab la mu sell moo xam ne boroom da koy sàmm di ci xalaat li yàlla gërëm yàlla mën naa def ci xel moomu te xel moomu ñu yeeyo ko ak xam-xam xam-xam bu wér te mooy alxuraanul karim yàlla mën naa def ci xel moomu gis-gisu firaasa ak lu ñuy wax kashfu moom mooy gis-gisu xol xol boo xam ne xol bu set la bu laab la bu sell la xol bu sàmm xol bu amee jikko yu rafet amee ngëm yàlla ak bëgg yàlla xol boobu suñ borom bu ko soobee mën na caa def gis-gis bu leer bu ñuy wax kashf ak gis-gis bu gën a leer muy gis-gisu ruu muy fath loolu moom ñëpp a koy am fath moom ñëpp a koy am mooy li alquran di wax wa yaquluna mata hadal fatx in kuntum saadiqin alquran ne xul yowmul fatx laa yanfau alladina kafaru imaanuhum benn nit ki yàlla wërsëgale ko bu muy dund walla bu dee ñëwee mu am ko Seydina Ali daf ne ñooñu gis-gis boobu la sun boroom def ci ñoom waaye daal ne ñooñu lan mooy seen melokaan mu ne ñooñu melokaan wi jiitu mooy sururu mamuuna ñoom dañoo nekk nit ñoo xam ne dañoo góor góorlu ba musal doomu aadama yépp ci seen ay loolu lu am solo la ci doomu aadama doomu aadama bu góor góorlu ba duutu gaañati doom moroomi doomu aadama yi du nas ay pexe ci xelam ngir gàllankoor leen walla lor leen du génn ci aw làmmiñam kàddu goo xam ne day lor doomu aadama yi du jëf ci ay cëram loo xam ne day lor doomu aadama yi te loolu mooy melokaanu jullit bi salaa salaam wax ne al muslimu man sallama al muslimuuna min lisaani wa yadihi jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit ñi mucc nañ ci aw ayam Seydina Ali ne na li jiitu ci ci ci ci ci melokaanu nit yàlla yi moom mooy loolu sururu maamuna mooy def te yàlla tax ko wax yëkkati ku baax du wéet xoolal lii seen xol sedd na seen xol sedd na xoolal soxna wala soxna ya waa ko Cheikh Ibrahima Dieye war leen ñu xool teraanga ko fóot dañ aw nag la fi yow te kenn yëgu man xaw maa ak la ci dem lépp lu fi waaye muucu di dem ba tari moo ko fendi ndox ak lépp lu fi waaye muucu rek mu neex moo ko fendi muucu lu fi waaye namp dem mu neex rek moo fendi <laughs> ñëw laay jant gaa ngi soog a neex boole na ca am xelam jàpp jàppale ca ba tax mu may la bis boo xam ne ni dala koo mas muy bis boo xam ne barki démb ci sanc yi la ñëpp fekke ngeen ko muy benn bis yaa yoroon bi ko raba xaalim yàlla nga ko yàgg yor barke Cheikhul Khadim kon euh, Moodu moo Ibra war a sant Moodu war a sant Ibra nee nag mi koy sant ba fa sant yam di ko ñaanal bisam bii lépp lu mu ci ñaan mbaa luñ fi jàng ci alxuraan yàlla ko ci kenn mucc yàlla daj ci ñu ñu fi toog ñëpp ak ñu juuti ci barke Seydina Muhammad Moodu nag su ma dee wax ci moom ba suba dama duma duma duma duma doy duma man a noppi ndax xam nga lu tax koo ne duma koy def nam la defa tax sama ba yàgg mu ne yàlla mi masaw mii de a gënal yàlla ñu ne ko ah buubu salaam mi ñu rëy na di masaw nu mu lay gënal yàlla yow yàlla sàkk ñëpp nga ne sawa la gënal yàlla mu ne yàlla lu mu teral teral bu dee dikkee mu rey la masaw nag da teral ba nga tedd te du Modou mii noonu la nekkee man barke borom déndéey man ku ma xam-xam borom déndéey rek laa yaakaar woo na ñëpp fële ca dalal ga ne leen déwén mbaay moom muy ñëw saa bu ñëwee xoolal leen ko nagu baax nag wu mu tànn ba ne moom laa bëgg bu leen bu leen ko tudd jox leen ko nagu mu dem ngeen woo ma téléphone ma dugal leen seen xaalis barke Cheikhul Khadim moom lay doxee noonu ku ma xool xam na defar na ma moom li muy sol la may solal li muy lekk la tey yi ma déwee sama kër ñu xam ne ci Mourou Bakar laa jóge yàlla yàlla guddalu fan sa yëb la ñoo ngi si siyaar bu baax mbay di la ñaanal sa bis bii yàlla na nga am lu kawe sa njort ma fu ñu deeti jëleeti góor gu sopp Bàmba ba mel ni seex góor a silan waaru ma fu ñuy jëleeti ku sopp seex moor moom soxna jaara ma yóbbu ñu daaru ma fu ñu dee ci gisee di waayu Seex Abdoulaye moom daaru koo kay man gis naa ko bis muy dox ngir jooxe waxtu yu ca yàlla daawul gannaaru jalaal ja ak jamaal ja la boole noo saxoo jamoo saxoo jaamoo taxoon mbaggam may jooru jalaal ja ak jamaal ja la boole saxoo jaamoo taxoon mbaggam may jool ñii la jiital ci cant gi ak ab xalifaam bi nga xam ne mooy sëñ Mor Jéey mii sëñ Mor Kumba Jéey mii nga xam ne mooy ab xalifaam yàlla boole ko ci bis mi ngi nii ci gannaawam mu ngi koy sant di ko ñaanal suñu boroom dolli ko xéewal nee na ginnaaw loolu muy sant mbooleem ñi mu bokkal yës yi mbooleem ñi mu bokkal yës yi boo limee na ngay juum njaboot ak maam Isaa Jéey mu ne su leen ñàkk lim njabootam Mamour Kumba Jéey wax naa ko léegi kon ñi mbokkali si ñépp gunge nañ ko ci jataay bi kon ay rakkam taxul ñuy wax mboolem ñi nga xam moo njaboote moom ñépp ba yégee bis bi ba tey nu bis bi mel rekk ñoom la ndax moom ma nga ndakaaru waaye ay rakkam ñoo ko fi wóotu di organiser di tegale bam jekk mboolem ay rakkam ci askanu yësi ku ci baay boole wala ndey boole la ci tam féetale kilifteef nangul nga ko ko ñoom ñépp ndax buñ ko yamale woon ci njabootoo sëñ Ibrahim dana gën a xat waaye bañ ko yëgee rekk lañ ne mboolem ku askanoo yësi ca nga bokk mu nekk ndakaaru ñu nekkal ko fii di ko ko nasal di ko nasal ba tey mu sotti rafet lool ba koy njort mbooleem ku yàgg amub bis xam nga ne ñoom nii ñu ko defee sonn nañ ci te fonk nañ ko kon mboolem ay rakkam képp ku rak ko ko koo xam ne nii féete na la kilifteef rek nee na nang ca jàppee neex na ko lool ma lay ñaar sunu borom doole taw féex ginnaaw boobu mu boole ci boroom toile yu jekk yi féete penku jigéen ñi nee na kenn mënu leen ci mbooleem luy taaral bis bi bañ ko déggee ba tey ña ña nga def seen ak mbootaay def ubbi seen ab groupe lépp lu koy jagal ña nga ca nee na jenn jëmmum juj bu ngeen ko bu ngeen ko ko bàyyoon danañ sonn lool waaye yéen boroom musóor ci otes yu jekk yi yaakaar naa nag sëñ sooy bu juufa lim na fi léegi maam xujja buso yaakaar naa moo ci dàqale moom ah, waaw moo moo ci dàqale maam xujja buso waaw moo ci dàqale kay waaw ñépp nangu nañ ko mooy maami gone mooy mooy maami mag ña gone yi kon loolu yi lu mat a xam la di ko leeral leeral jigéen ñi waaw sëñ sëñ Abdou Mercier yi mii nag nee na moom itam dana ci rax cant ak boppam si Abdou Mercier yi na mi ci rang ndax cant ak waa waa caareen ay goroom sëñ Abdou nee ay mi ngi sant ay goroom ba fa sant yàlla yam nee na seen délégation ci kaw na jortu nee na ca kaw ca kanam nee na ñi ko may soxna daal tubaarkàlla sant na leen mu baax a baax sëñ Fallou Dieng mi nga xam ne nag mooy porte parole lu kër gi moo ma yónni ci sëñ Amdi moom itam nee na sëñ Fallou mee nee na sant na sëñ lu wér a wér nee na sant na ko fu baax a baax nee na yàlla na sut sëñ maam góor aw fan yàlla na ko ëpp barke yàlla na toog a toog ba dund sàppi ko mu toog ñu di ko liggéeyal moo ma ko sant te fàllu sama xarit la fàllu sama lépp la lu ma sant naa ko def sëñ fàllu moom yàlla xam boole li li ma koy li ma li ma koy li ma koy ëpp ëpp ëpp ay at taxul maak moom benn lañ luñ umbante ci dara lu mu nekk xam naa ko lu ma nekk xam na ko yàllaa ko def loolu la yàllaa ko def defu ma ko yàllaa ko def san si Ibrahima si am di nee na bis cër bi rëy na ci moom nee na dangaa baax rek dangaa baax ba cërale ko ko ci waaye moo moo naka jàkk noonu la ma a demee nee na lii nag moom yàlla na yàgg yàlla na taxaw a yàgg yàlla na suñu borom defal lépp loo bëgg comme dafa guddi ta ta ta yaagu na mag ñi fi ñu yam ko foofu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah musulmi nga xam ne luñ fi wax lépp ñoo ma ko dàq waaye cër bi ñu ma jox rek moo tax ma leen di waxal sëriñ Abdou nee na mi ngi sant góor ak jigéen mag ak ndaw di leen xamal ne mbir mii de ba ko Cheikh Ibrahima Mbaye yëkkatee ba nëgëni si njaboot ak sëriñ Ousmane si bi gépp li ko dale ci sëriñ Jibi Njaay ba ci sëriñ Xaadim Jóob góor ak jigéen ak mag mag ak ndaw kenn ku ci nekk tàbbal nga ci saw ñaq kon loolu kenn amut payam Cheikh Ibrahima nag ni ma la waxe ni ma ko waxe woon wàcc nga wàccaale ñu bari ndax ki nga xam ne moom nga tudde bis bi muy Serigne Ousmane si bi ak sama nijaay góor gi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mat nga wasila la di nag àdduna moom dafa nekk loo xamante ni bii lu waaye baax baax rek gis ku ko gën a baax ndax baax moom mënta weesu baax waaye sëriñ Ousmane wax ci moom lu yomb la man nag xam naa sax duma ci mat sedd waaye li ma ci wax lépp ku ko dégg danga ko gëm ndax boo gisee ñuy wax sëriñ Ousmane si bi moom sëñ Abdoulaye Mbacké moom dong nekku fa woon waaye nag pas-pas bi ak bëgg gu bëggoon Cheikh Abdoulaye Mbacké mu da moo tax ñu daan ko dàkkental ci Ousmane si bi moom sëñ Abdoulaye Mbacké waaye nag mu ñëpp fa bokkoon nekk waaye nag am na fu mu ca tolloon foo xam ne ñëpp ràññewoon nañ ko ca kon sëriñ Abdoulaye si bi mii nga xamante ni bii moo ma yónni xam naa li mu wax lépp sax dama ko dul mën a wax ni ma ko waxee waaye nag danaa ci mën a wax ci sëñ Ousmane lu bëree bari waaye nag dama ci wax tuuti rek sëñ usmaan dey nit la woon koo xam ne dafa jaboote ñëpp li may waxee mbooloo mu seere nañ ko mu nekkoon ku nit ku yiw ku bëgg sëriñ Touba ku bëgg ak njaboot te daan dimbale jaami yàlla yi te yàlla tax la mu amoon daf ko daan jox nit ñi te yàlla tax bàyyil leen nag akub deram lu jafe la loo am bokk ko nit ñi lu nit ñi am nga bàyyi leen ko bàyyi leen sab der loolu lu jafe la te loolu yàlla defaloon na ko ko kon la nga xamante ne bii moom la Cheikh Ibrahima mbay ñuy def moom rek la mën a def ndax ni mu ko waxoon tey ci bëccëg ki fi bàyyi koo ceeb ak yàpp du ko jariñ dara mburook soos du ko jariñ dara ñaan rek moo ko mën a jariñ kon kaamil yi nga xamante ni bi moom lañ fi jàng àttan na lu ne mën na lu ne bis bi nag ñii nga xamante ni bii dañ leen koo tuddee mooy li nga xam ne ku ko gis ci sa wan faxas ko ku ko kom dal ci sa mbubb nga dàq ko te mu baax ci nit mooy mbóot ñooñu nag ay mbóot lañ amoon mooy ñi fi dëkkoon ñëpp te doon ay magi lislaam ay nit ñu baax lañu woon yoo xam ne képp koy waxal yàlla rek da xam ne alxuraan moom fii moom la kon sëñ Ibrahima nii nga def nii dajale nga bokk dundal nga lislaam yàlla na la yàlla ak sëriñ Tuubaa jàppale képp koo xamante ne bii danga fee ñëw rek tey jii tànk yi nga ñëw ak yi nga delloo yàlla na ko yàlla def tànki ngërëma may wax nag ne njaboot ak alaaji Seex Jaañ maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm te di jiital Seex Njaarem Jaañ mi nga xam ne moom la yàlla teg ci xalifa gi ndax goneem yi day keroog tey ci suba bi ñu xëyee ba nëgëni si lépp luñ def ñoo seen bàyyi addu ñoo ko ànd te kenn woowu leen ci lañ am ak lañ mën ak seen doxin ak seen waxin lépp def nañ ko kon macha allah sëñ Ibrahima yal na la yàlla sëñ Tuuba lafal cat sëñ Ibrahima xam nga lu baax man nga lu baax yaa ngi koy dox te di ko waxee képp koo xamante ni bi xam nga sëñ Ibrahima rek xam nga ne ci lu baax rek lay dox di ko wax kon Cheikh Abdoulaye Sy bi mii nga xamante ni bii mooy xalifab sëriñ Ousmane Sy bi ah lépp loo xamante ne bi bàyyam bàyyi woon na ko fi tey itam ku ne xam na ne wàññiwu ci dara lépp da ko ànd kook rakkam yu baax yi nga xamante ne bi ñoom la fi yàlla teg ndax damay faral di wax ne kilifa yàlla moo koy def ci nit bëgg a jiitu taxatu jiitu bañ a jiitu téewta jiitu waaye nag yàlla mooy sàkk njiit kum jiital mu jiitu kon képp koo xam ne kii bëgg nga ku la topp da nangoo toppee ku toppul kenn kenn du la topp nañ góor góorlu kenn ku ci nekk ka nga war a topp nga topp ko mbir mi kat bor la boo xamante ni bi dañ koy dañ koy leble rek yàlla nag li muy baax baax du fekk koo xam ne dafa def naka sudut noona mu lay fay lu baax moo fi gën a baax nag waaye def lu baax moom am lu baax rek kenn musta gis sama borom moom ngay def leneen mu fay la leneen lu lu baax kon mbokk yi maa ngi jéggalu ci kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp lépp lu ca dëng ci man la waaye lu baax rek laa ci bëggoon kon wama salika àlallaahi bi assis jërëjëf ak Abdou Ndumbaan Sibi Abdou Karim Sibi Moustapha Sibi Mamadou Lamine Sibi mu Malick Sibi Malick Sibi moo jur Ami Sibi Ami Sibi jur Njaarim Jaañ Modou Mamoun Jaañ ñoom ñëpp ci bi gi lañ bokk Moustapha Sibi waaw ma ay sa niini la Marème niini jëmbur niini Baba niini Faati niini ñooñu ñëpp ak Issa Diop yaayu Issa Diop a bokk ndey ak baay bàyyi Ousmane Sy bi lu masaam jox na ko jaabu yàlla yi moo dal njëkk a dalal sëñ Fallou Ndakaaru bàyyi Ousmane Sy bi moo njëkk a dalal sëñ Fallou Ndakaaru riiw tol bi yaag riiw foloris riiw polool moo fa njëkk def restaurant kuy togg restaurant fii ci bàyyi Ousmane Sy bi nga ko jànge lu mu yor jox ko jaamu yàlla yi ay këram da koo jaay jox ko jaamu yàlla yi ñu koy tàllal loxo oto yu mu yoroon mu jaay jox ko jaamu yàlla yi lu mu jur tëdd Cheikh Abdoulaye borom dër bi sëñ Modou Kéemaan sëñ moodu Kéemaan sëñ Cheikh Mbakke soxna May lum jur sa sëñ Abdou Abdou nga ne sëñ Abdou nga ne Habib Sibé ngi nii lu mu yor jox ko jaamu yàlla yi mu ànd ak Baye Sayer Diop groupe électrogène ñu bari xamuñ ko woon groupe électrogène Baye Sayer Diop a njëkk a jox sëñ Abdou sëñ Abdou dër bi oto bu màggal jotee mooy def groupe bi ci commune bi ñu yóbbu ko boobu Touba kenn amul lamp tampeta amoon lamp Kolma Cheikh Abdoulaye borom dër bi rek amoon lumière moo amoon lépp Issa Diop jël baa jox ko Cheikh Abdoulaye borom dër bi addiyo kër Issa Diop Sayar Diop moomi joobam Issa Diop sëñ Abdou borom dër be ku tudd soxna moomi Mbàkkem Serigne Touba ummi Diop mu tudd ko ummi Mbàkke Serigne Cheikh Mbàkke sëñ Modou Habib luñ nga jox lu ñu am sëñ Abdou borom dër bi lañ ko jox sëñ Abdou borom dër bi lañ ko jox mu ne eh, Baye Ousmane nee na sëñ Abdou borom dër bi daf ko doon wutloo ay karo Ndakaaru nee na muy wut ay koro di wër di wër di wër mu ne man de du ma génn Ndakaaru te aw may karo benn tubaab daal di koy gis ni ko sëñ bi yow looy wër mu ne ko karo mu ne ko am naay karo mu wut oto sarset karo ba indi ko Daaru Rahman kër sëñ Abdou Borom Ndër nekk Daaru Rahman tey karo yoo Baye Ousmane Sibé ko fa lu mu yor jëf ni ko jaamu yàlla yi ak amuñ ku dul Cheikh Abdoulaye bi borom joor jël ndox mooy Cheikh Abdoulaye Borom Ndër bi ah Cheikh Abdoulaye bi dafa nekkoon koo xam ne euh, Baye. doom yi bàyyi Seeru Jóob ñu koy Abdu Jóob dañ koo woo tudd ba pare tudde ko sama bàyyi Isaa Jóob tudd rek sëñ Abdu borom dër bi ñëw ne tur bi maa ko moom muy Abdu moo moo continué sëñ Cheikh Mbàkke sëñ Fallu sox doom moomi ummi fii lañ bokk nag sii bi gi nekk fii lañ bokk dañu ko xamul ba Abdou Karim sii bi Abdou Karim sii bi moo jur Ablaay sii bi ñu bokk benn ndey ak maam lay sii bi Abdou Abdou Karim sii bi ak jibi lay mi juru motaar lay ñoo bokk benn ndey ci suba teel lañ jóge Dakar fonk bis bi bañ leen waxee ne leen dañ ciy ñaanal sëñ Ousmane ak léegi amul jàmm yàlla leen yàlla fay lépp lu ngeen bëgg seen àdduna yàlla ko yàlla def lépp luñ fi jàng ci alquran yàlla ci yàlla jotali ci yoon bi maam Ousmane maam Ousmane nit ku baax la woon nit koo xam ne dimbali nit ñi kon nag at bii ji ci lay xaay siis te ba nag balay sëñ mu war a tàmbali léegi di siyaare sama waa kër nijaay ñooñu moom siyaar leen sax mooy siyaar sama bopp am ni Moustapha mais jiite délégation daa bokk ci ñi nga xamante ni dañ ma dimbali ci sama àdduna ndax ba muy gën a metti ci ginnaaw waaw mu masaan jóge bi dem Dakar moom moo may dalal taxaw bis bi ku ci yàgg sonn la ba mu ciy sonn du tey moomaam di moomaam di nit ku baax a baax la jikko yi ne ci moom yombul ma gis ko ci doomu aadama xamul tax moom nit ku dul sensé la kon nag Moustapha nuyoo bi maa ngi koy teg sa loxo nga jàllale ma ko ci njaboot gi maa lay ñaanal yàlla di ñaanal mboolem njaboot yi nga àndal yépp góor ak jigéen yàlla sàmm leen te wéral leen لله مؤمن والمسلم له بإخزان زين أختم بالمستوى لو يموت وأبس إس جنة الخلد خد اللوس بان لنا ما بالاتباس كونا لعبد الله خير ناس بان لجملة الملائك الكرام كون رسول الله لخلق إمام بان بقولي بلا عداه يوم على فلا سواه به بني عرضون والسماء وخلق الرجال والنساء مبارك الابتداء ميمون للجاه من الباخ القديم في معجزات راق المقدوم بران الباخ من الأمراض وكب من أنكر باحتراد له سكون على حياتي عبدا قديما فاز بالعيات أذكره شكرا في نظيمه من اسمي والجنان حرموا قلت حياة لا تلالي خيري معجزة بالا لحسن خيري يجود للجواد بالجهاد وشولي يكون ذا القياد أغيابي الباغي بلا إماتة ولا تناسي ولا سماد التالي الباغي كتاب الأقزماء ولا أخي كل من لا السماء أني جزاء والدتي ووالدا خير كثيرا لا يزال قائلا نوالي بالمصطفى المصطفى علي تسيرون فلا أنفي داخلا إلى سكون من شغل لي خلق بقى زمن ربي مالكي خليلي وابيب وقد ما عني يداحي التبيب براني من كل عيب ومرض وقال لي ذعت في كل عرض بريت من عيوب نفسي بتجاه إلى الذي أبوابه لن تتجاه هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد الوسيلة وجلتي عن كل سوء الوسل وجلتي ينقال مني السلام عن سلام له بعلي وأفضل المرا رسولنا أحمد كلي على إليه خير الصلوات الأخلاق شنت له أبكارا بايندا من جل زهني وزفا خللا قلبي سوى بكون ربي خلي هبي والهجار كسرا خلي وجعلي ألا وتداريني وفي ما جارني جارين bi itam ndoortale ba nag ni ñoo sëñ Ibra ko ànd te suñ yéene ak suñu yitte ak li ñu ñaan suñu borom mooy yàlla nañ koy ànd ba fu fu ko suñu borom yemale rek ndax diggante bi yàgg na loolu te rafet na lii nga doon wax ni léegi yàgg na de 1992 la woon 92 ak léegi nag bi ñu téyee ci xasida yi ba léegi bàyyeeguñu lu bari rek fi la ñu fekk ci liggéey bii moom mii nii di ko def nag muy jàmbaar di ku baax di ku sell di koo xam ne illaa man ataala moom tàbbi na ci moom xol bi dafa leer Ibra yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na yàlla sàmm la yàlla nga tàmbali te yeggale yaa mboole seen jullit yépp loolu rek moo tax ñu ñëwoon toog na la defal te man nga ko waaye ku dégg ni ngay waxee dégg ni ñuy waxee sorewut kon nag ñoo ngi sant sëñ tubaa liggéey bi tubaa bi di xaside yi luñ ci def yàlla na ko sëñ tubaa nangu euh, sëriñ Gueye mii nga xam ne itam dañ ko ci ibraa ngi wax léegi ab taxawaayam ci alxuraan muy ku suñ borom may ci xuraan waaye itam noonu la mel ci xaside yi kon nag képp koo xam ne tudde nga ko bis jàppal ne tudde nga bis jàmbaar tudde nga bis taalibe sëñ tubaa bu ko gëm te doyloo ko ubbi ay buntam ci liggéey sañ Touba ci bunt yu baree bari nag soo ko fekkee muy bind am na ci yéene bisu xaside bii ñuy def ci Mbàkke muy bisu duruskat yi gën a rëy ci dëkk bi barbatu yi nga xam ne mooy dem ci sang si moo koy bind te sang yi si am na ci koo xam ne ñun ñëpp maase nañ daje ci ne yot ko mbind te déngatu ko yombut keroog bi ñu ko yotee lettre bi maa ngi toog jox ko ko bi mu ko liiree ba noppi dafa laaj ki ko doon bind ñu ne ko nekkul ci jataay bi mu ne moom day topp nañ ko waaye gisee su ci dara loolu xusoosiyee la yal nañu sa njiglaay kon nag ñu njëkkante foofu rek jox la kàddu gi te di la déglu tey bég ci yow. mu cërale ma ci loolu sëñ Ibrahima sedd na sama xol loolu moo tax ku ma am rek woo naa la damaa waxoon ne képp koo xamante bëgg nga maa fay na nga ñëw ku ma bëgg a lebal na ñëw. moo taxoon mboolem ku ma séqal jàmm ak kóllëre ànd na ma ñoom ñenn ñi nu amee yitte waaye bu ma tuddee sëriñ Fallou Fall di rijaalullaahi akbar di sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Saliou Fall ak sëriñ Mortala mi ak sëriñ Murtada Kebe PDC Nasrul Muminin ak sëriñ Mbay Caam aalim ak sëriñ Mbàkke Gey salaatu sëriñ Mbàkke Fall ñooñu danañ yóbbaale ñi nga xamante ni ñëw nañ ba dem sëñ Ibrahim bég naa lool di wax ni bis ba ma ko waxee bis boobu laa jekkoon ndax yaay ki mu njëkk a defal lu mel nii ci àdduna donte sama tur nag yaatu na lool waaye lu mel nii yàlla ci yow la ko dogalee kon bég naa lool ñaan borom bi bég ci yow waaye sëñ Ibrahim nit mënta joxe lu mu amut li ma am rek laa la mën a jox alquran la am ak qasida ak turu yàlla loolu rek laa am moo tax yàlla dogal na jàngal naa sama bopp juróom-ñaari kaamil defal ko addiya jàppale ko ci bis bi jàngal naa la fukki nuuru daarayni ak ñaar jàppale la ko ci bis bi loolu nag bu ma ko defee mbirum baatin la ndax wóor na ma ñu Cheikh Mahamadou Kabir ba wàcc sa wayjur loolu seen yitte la kon loolu na xam ne loolu laa am sama diggante yow laneen li ci topp nag wàllum saahir la loolu dara ay kayit rekk la katabtu fil bahri sahyan xaalisan wa bihi xustu alladi saaqa lil awraaqa wa dahaba Sëñ xaalis ay kayit la ko tuddee ay kayit rekk la xeeb naa ko lool te bu ma sañoon dana ëpp dana bëri fukk la ba muy ñett rek xeeb ko maa ngi seede Sëñ Tuubaa bu ma amoon lu ëpp loolu dinaa yëkkati jox la ko waaye maa ngi wax ñépp ni maa damaa bëgg nga jaay ma ab bisub cant mu doon mil 2027 insha allahu rabbi jënd naa ko ci yow nga defal yaa xam pereña lay doon yaa xam invite d'honneur lay at waaye da xam ne daal 2027 moom jënd naa ko bu fekkee ru maa dund gi bàyyi nañ fi loolu li mu ci jublu nag mooy yéene ji ma am du ma xaaraat nga di ma ko waxaat man maa lay wax ne 2027 jekk naa loo ma cër ci bis bi bu boobaa nag lu ma am lu nekk dinaa ko dinaa ko jëf sottil la ko ngir wane sama mbégte ak sama kóllëre ak yow sama taaw bu jigéen moom mii laa ko bàyyeele sëñ Ibrahim ci Mbàkke lépp luy conférence ba barab bu mu jàpp ni bu ma fa dem ma am fa teraanga dana fa xeefee ba ma waxtaan fa sëñ Ibrahim bu ñu demee ci barab bu jàngee ba am teraanga donte xam ne sama poos dis dana yëkk dara jox ma sëñ Ibrahim jamono jàppoon naa ba awma lu ma joxe dépense moom mi mu yëg alam jox ma te duma ko wax day mel ni day xam loolu yooyu ay teraanga yow ma defal la ñaarete mooy bi yàlla dogalee ma beru ci berukaay yu ndaw yi dama ñeewant lool mel ni ñoo bokk ndey ak baay loolo ñeewant googu xam naa ko te mel ni moom tamit laa mën a waxtaanal ñaari waxtu te te duma doyal ku dul moom rek ay minit lay def ci moom kon nag sëriñ Ibrahim sant naa lu baax a baax te gërëm naa lu baax di wax ni délégation bii ma jël mënoon naa tànn ci biir mbayeen wut si sama délégation bopp ndax waa mbayeen samay xarit lan samay mbokk lan kon lii ñetti fukk la xeer naa ko lool suñ borom na daa waxoon ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla nee na boo amee li ma def ci yow yàlla ne na nga ko jiibaane ba àdduna bépp xam ne yow am nga ko la in sakkatum la azidannakum waaye daal na nga xam ne daal bég naa ci yow lool ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci yow ndax bis bu mel nii gën a rëy ci Mbàkke ba muy am juddooguma ñu dem ba man ñi may dara jaara dara te nit ku nekk dangaa bëgg sa jëmm te man damaa bëgg sama jëmm moo tax ku ma foto baa nga estati ma baa nga sinap ma baa nga def ma poster man dama lay bëgg te dama la koy laaj ndax damaa bëgg sama jëmm moo tax sëñ Ibrahim damay wax ni estati yi nga ma defal ak avant premier sama tur wi nga tudd loolu rek waroon naa tax ma yëkk teraanga jox la ko rawaat na nga dugal ma ci mbóot maanaam guddi goo xam guddi mbóotum góor yàlla la kon na nga xam ne li nga ma defal yëg naa ko baax a baax di sant sëriñ Mor bu baax xës di gi mu yëkkati te nu ma mel lu nekk mooma ndax man naa wax ni moo tax ma gis Sëñ Tuubaa wax ak sintubaa moom xës digi moo tax tamit ma mën a wax ak xasida te lool loola moo tax lu ma mën a askalan ci àdduna li ma wooye Sëriñ Gueye mi nal baaxat yi moom ko gënal ndax loola day yokk sama mbégte sama diggante ak Sëñ kon Sëriñ Mor bég naa ci xes digi lool ni nga ko jàngee li may tëjee rek mooy sëriñ Ibrahima ñun ay murit lan doon ay taalibey mu nu mënuñoo doon leneen lu bokkut ak doon taalibey sëriñ Tuubaa galas gettare léegi daa wax ni sëriñ Muntaxaa daa wax ni ëllëg yowmal xiyaam malaaka yëbut sëriñ Tuubaa loolu waxi sëriñ bi ci waxi wolof bind ko ci xasida Minal Baax Xaddiim sëriñ Jiili waa daan sugu daa defoon lu mu tudd lu mu jur tudd ko sëriñ Tuubaa di tudd ba kenn juddu mu tudd ko Ahmadu Tasrif biñ ñëwee njaareem sëñ tubaa jël ahmadu tasrif moom yàbal ko ci sëriñ bi mu ngi ko noo tudd mu ngi ko ahmadu tasrif sëñ tubaa ne ko tudd woowu bu ëllëgee barzaq moom lañ may wooyee moo tax sëñ tubaa waxoon ci xës dëgg ne malaktani saraftani tamlika ahsana tasrifin ala muluka sëñ tubaa nee na yàlla bu ëllëgee yam ko barzaq dinaa soppaxndi ko nu ma neexee te na may soppaxndi ko kawe malaayka yi loolu waxi sëriñ bi la damay far di wax na tamit ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi li fekk ñi am kàttan di am pexe di man sëriñ bi buñ koy tudd di ko woo nañ koy ber fam nekk day jël suñ kàttan bopp ak suñu pexe bopp buñ demee ba tële ba mënatun ñu soog mën a xalaat sëriñ bi waaye lii fekk ñi ngi mën a am suñu pexe bopp di mën a jëfal suñu bopp muy sotti moom nañ bàyyi jëmm jo foofu ak turoo foofu ak xalaat gi foofu ndax day mel ni moom moom loo ko gën a wekk gën koo wagar rek mu gën laa jege gën laa jegeel boppam darajaam ak maqaamaam li gën ci ab taalibeem moom borom Tuubaa yàlla na ko def ci suñ jëmm yii darajay sëriñ bi xaside yi yàlla na suñu àdduna neex biir ak biit zaahiran baatinan tënk bu gàtt daal mooy bég naa lool di sant nag mbooleem ñi nga xam ay jëlkati jëmm lan mooy sina sina bëri yeeg ñi estateeg borom rajo yeeg ñëpp rek kenn ku nekk ñun bég naa ci li ma defal kon suñu xaarim maa ngi jël cant teg ko ci yow yaak Serigne Mbacke ak suñu jiili mbay ngeen tegal ko mboolem ahlu mbayeen gi ak soppe Serigne Sam Mbaye yëpp wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bis bi moom na la wóoroon daal defoon na ko ne bisu boppam fonk na lool tamit wax yàlla kon noo ngi ñaan Serigne bi kàttan la ni ko gaañ waxee rek alxuraan moom ku ne xam na am na ci cër ak xasida te noonu la amee cëri ci xam-xam bu mën a doon ci yi nga xam xam-xam yi am njariñ la loolu moom gaañ xam nañ ci dara ndax bari na ku ñuy wër di la di la di la timalee téléphone ak a tagg sama classe bi nga xam ne bu ñu toogee léeg-léeg daanaka gaañ yi bu ñu leen wëree ñu ni jaay ci moom bu ñu jagee ci moom la ñuy gàggantikoo ci xam-xam asraar ko ci gàgg ci ñun ci moom ngay gàggantikoo te taxul mu fësal ko taxul mu wane wanewu ci te bari naa ci morom ñoo xam ne ko ci gàgg këram ngay gàggantikoo kon loolu ak mbaaxam la xam-xamam bu yaatu ak bu laay wéram kon na sant bu baax a baax di ko gërëm.